waaw asalaamaaleykum euh, ñëpp maa ngi nuyu ñëpp euh, di la di la gërëm aussi te di la sant ndey ci liggéey bu rafet bi ngay def euh, di remercier waa Touba Argentine TV wax dëgg yàlla ñu jara remercier lañ parce que ñu ngi def liggéey bu am solo tey ci seen jour anniversaire aussi wax dëgg yàlla ñu def ci xew ñu fi xew-xew bu am solo muy sëñ Akassa bi ñuy invité wax dëgg yàlla mu wax fi aussi wax yu am solo ñu kontaan ci lool mu mel ni ñun niñ ko gisee dafa mel ni association bi sax la fi toogal ndax wax na fi ay wax yu am solo yoo xam ni Euh, di soññ sénégalais maanaam ñuy respecté loi réew mi yu am yu mel noonu donc wax dëgg yàlla kontaante la kontaante la ci ñun euh, euh, ñu ngi koy rafetlu lu baax a baax te ñu ngi leen di gërëm aussi di leen sant di kontaan aussi ci ci sénégalais yi je pense que sénégalais yi ñëw nañ wuy si ko yi ñëw nañ wuy si Touba TV Argentine muy affaire bu am solo fii yaakaar naa ni tey boo xoolee mbooloo mi tijaan a ngi fi murit a ngi fi xaadir fi ñëpp a fi catholique a ngi fi donc affaire bu am solo la ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. waaye yow en tant président association Sénégal yi ñu lay laaj sénégalais yi sénégalais yi ñëpp tey ginnaaw yàlla yaay suñu njiit ñu bootu sa ginnaaw yow liñ fiy dundu ak xew-xew yi fiy am yow en tant que suñu président yow nan nga bëgg ñu dundee ak nan nga koy yëgee ak lan ngay car mbat ci ñun ñu koy carmbat aussi ci réew mi ndax bëri na ay jafe-jafe nag yu ñuy dundu tamit bëri na ay yoo xamante ne ginnaaw yàlla yow lañ ci yaakaar nga war ko dox war ko wax ndax yow la fi yàlla teg nag ñu jiital la. waaw am na solo trop yaakaar naa sëñ Akassa tontu na ci question bi li mu wax dafa am solo trop man dama ko rafetlu mel na ni euh, bi mu waxee ba pare sax ñun jaratul woon ñuy jël kàddu ndax nit ki boo nekkee ci réew aussi euh, di fa suturlaw da ngay sant yàlla yaa ngi dégg am na ñoo xam ne te ñu ngi bëgg ñëw ci réew mi te mënuñu ñëw yaakaar naa wax na ko aussi boo ci nekkee euh, da ngay respecté loi réew mi maanaam Argentine bariwul problème mën nañ wax waaw problème nag du ñàkk problème du ñàkk parce que ñu ñu ci bari ci mbedd mi lañu lañuy lañuy lañ nekk ci la ñuy liggéey te aussi il faut de temps en temps ay accrochage di am ak force de l'ordre yi moo tax aussi damay ñaan sénégalais toujours aussi ñuy ñuy moytu ñuy moytu parce que wax dëgg yàlla aussi yenn saa yi xëy na tubaab yi dañuy tooñ policiers yi dañuy tooñ mais nag ñun ñoo war a xam ni ñu ñoo ne ci réewum jàmbur donc ñuy moytu yu bari yoo xam ni euh, wax dëgg yàlla daf ñu indil ay problèmes yoo xam ne kenn xamul fu muy mujj waaw donc may ñaax sénégalais rek ñu gën a góorgóorlu xam naa ne ñëpp a ngi góorgóorlu wax dëgg yàlla sénégalais yi bariwuñu problème euh, problème bi ñu am rek mooy xëy na mbedd mi ak yooyu mais wax dëgg yàlla bariwuñu problème noonu kon defe naa waa Télé TV Argentine defe naa dégg ngeen tey président bi nga xamante ne mooy Diédhiou du suñu président association bi ñun ñi nga xamante ne ñooy sénégalaises ak sénégalais yi fi ne dégg ngeen li mu wax ñuy lu aussi liggéey bi nga xamante ne moom mi ngi ko fi taxaw ak ñun ñu bëgg tamit ma defe ne Gambien sama caméraman war nga maa mën a topp tuuti rek ma jël quelques personnes tamit laaj leen ndax guddi tey bi moom dafa alaa daw me neex rek nag yàlla neex neex ànd ak mbégte li nga wax vraiment kontaan rek nag ak boole ceeg kontaan rek ñuy ñaan yàlla nag mu bañ a doon suñu dernière rencontre ñu yàgg koo fekkee jërëjëf. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu waa rajo bi di leen ziar baax a baax di leen xamal ne bis bi daal moom neex na macha allah ak sa daal la mu def Argentine moo fi des. waaw moo fi des vraiment kontaan nañu trop trop trop kontaan di yem. ñi nga xam ne muy ñoom góor ñi nga xam ne nag ak gambien ñi nga xam ne ginnaaw yàlla lu jiin njaag te ñooy njaag yàlla na leen yàlla gën a dooleel kartanal leen ba lépp lu ñu dëkk rek nañ ko daan ci barke Seydina barke Serigne Fallou ci télé c'est ñi gën a mag àddina bi waaw kontaan nañ daal bu baax baax daal di leen ñaanal gudd fan wéer yokk ba yëg ko rek ci barke Seydina Mohamed defe naa ne nag mën nga maa may ma jël beneen jigéen laaj ko ñaari baat muy Sophie Gueye Sophie Gueye nag dañoo bëggoon tey ma bëgg nga jege ma fii sama caméraman jël la ma am lu ma la laaj yaayu sëñ Saliou Mbacke borom xel kom jaaga borom jàmm ak jamono kenn du wax murit nag te kenn du la tuddaale ma bëgg laa laaj tey euh, sama chéri nijaay tey ma bëgg laa laaj bés bi noo ko dundee ak noo ko yëgee. waaw nday bés bi moom soo ma ko laajee dama si sawar a tontu ndax euh, bés bi moom suñu bés dinaa la benn affaire tey jii man xëy man si groupe bi laa bokk xëy na nag du ñuy feeñ chaque jour ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy membre mais man membre laa si ndax góor a chaque jour mi ngi may woo di ma laaj ay idée liiloo si xalaat bu defee vidéo bala ma koo dugal dina ma dina ma ko yónnee ma xool ma ne ko ah rectifier lii rectifier lii xam ma ko loolu man si laa bokk te am na fu ma teg vraiment di ñaan nag yàlla defal ñu ay télé télé télé télé télé ba ñëpp représenté ko si dëkk bu ne si Argentine dafa rëy daal ñu représenté ko si province bu nekk nga xamante dina am ku ko fay toogal ba dootul ti dem fenn kontaan nañ si anniversaire bi fi ñu dëkk sori na waaye dañoo bàyyi lépp ñëw ndax góoru moo ñu ko jaral waa ak big di incha toujours dañuy lay wax ne caméraman yi maanaam ñun ñooy feeñ mais yéen ñi ci ginnaaw yéenay techniciens yi yéen a yor liggéey yi gisoo caméraman kii moo yor caméraman bi maa yor micro bi mais technicien yee nekk ci ginnaaw di liggéey liggéey bi kon liggéey bu xarañ bi nga xamante ne ñun ñoo koy liggéey ñun ñooy feeñ mais yéenay techniciens yi yéen a nekk ci ginnaaw